kii mooy daj dëpp gi nag kii moom mooy li nga xam ne mooy indi riir mi ci réew mi ci jamono seddaay bi ak mag ñi nga xam ne seen tànk yi day métti ñi nga xam ne dañu am ay douleur articulaire ñi nga xam ne dañu am rhumatisme ñi nga xam ne dañu am nerf ñi nga xam ne dañu am ay yaram yu ruux ñi nga xam ne dañuy am ay gaañu gaañu kii moom laa leen indil mag ñi nga xam ne nag ñu ngi koy diwoo mag ñëpp signé nañ bokk nañ d'accord ci ne frotté bi nga xam ne moom laa euh, defar mooy meilleur proté ci Sénégal ci àddina bi ndax bii moom képp ku ko diwoo bépp métit bu mu fekk si sa yaram daf koy dindi amul werante képp ku ko mos di nga ko dolli ñu koy commencé yépp di ko utiliser amul kenn koo xam ne commencé nga ko utiliser bàyyi ko disponible na nag partout dans le monde ci Sénégal ci bitim réew képp ku ko soxla boo contacté ci numéro téléphone yi ma lay jox incha allah di nga ko mën a am